ما يضل لا لا لا إلا لا لا لا لا لا دايما ما يضل لا لا لا لا لا لا اله آه، الا الله لا اله الا آه، الله

Yagaba. Yagaba. La la la la la la. Father. faal la la la Baba. Yeah. لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا heart. إله إلا لا لا إله لا لا يا يا يا لا إله إلا waaye ya ala la ilaha illallah la ilaha لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ارفع يا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا ah لا إله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا غفال يا غفال لا لا لا la ilaha إله لا لا لا إله لا لا Ah, ah. إله لا لا لا لا لا إله لا لا لا يا غرفان لا إله لا لا لا لا لا لا إله لا لا يا يا يا يا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله la la la لا إله إلا لا إله إلا God. Fall. Ah, yeah. Ah, yeah, إلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا La la la la la la. لا لا لا لا لا Your heart. Oh, Allah, Allah, Allah. الخليفة لا لا لا لا لا يحفظها لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله لا إله لا لا لا إله لا إله لا لا المال لا إله إله إلا الله لا إله لا لا لا لا إله لا إله لا لا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 ah لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله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 إله إلا الله لا إله لا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا يا يا يا الله الله الله إله إلا الله لا إله لا لا يا مفعل يا لا إله إلا لا إله لا لا يا إلا لا إلا لا لا يا لما يا لا la la la la La la la la la la la la la Oh, لا لا لا لا لا لا إله لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا يا يا يا لا لا لا إله إلا الله la la لا إله إلا لا لا لا لا لا جمهور لا لا لا لا لا la la la la

la la la la la la la La la la la la la la la.

النار لا لا لا لا لا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا

la la la إلا الله لا إله إلا لا يا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا الله يا بوفا يا لا إله إلا الله لا إله الله يا يا يا يا ilaha illa allah la ilaha illa allah ya wafan ya jaba la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya ya my God. Oh, oh. あ زلفان يا جبال هو يا قطعوا لا لا لا لا لا لا لا مفر لا لا المفر لا لا لا لا ba ya lay فرقا لا لا لا لا لا يا فرقا يا يا قبا يا لا لا لا لا Hero Mount. Yeah, yeah. My God. Yeah. La, la, la, la, la. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, لله لا لا لا لا يا ابو فان يا يا ابو فان لا إله لا إله لا إله لا about قبلنا هلا لا لا لا لا لا يا أهل فنا يا قبلنا هلا لا لا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا ما يقول لا لا لا لا لا لا ينفع لا لا لا إله إلا الله لا لا Phật Ya ga ba da La la la illa la la la la la Phật La la la la la la la la illa la la la Gaba, ah, ah, la, la, la, la, ah, la, la. La la la la la la la ilaha illallah ilaha illallah yo Allah my God ilaha ilaha illallah la ilaha illallah yo Allah قبر لا لا لا إله إلا الله لا إله مفر لا إله إلا الله لا إله لا إله النفار لا يا يا قمر لا لا لا لا لا لا لا المفر لا يا يا قمر لا لا لا لا لا لا يا بعيدا لا لا لا إله إلا الله لا إله لا لا إله إلا الله لا إله لا لا Mustafa Agaba La ilaha illallah La ilaha illallah Ya La La يا عبد الله يا بايغو لا لا لا إله إلا الله لا إله يا أنزل لا يا يا كبا لا لا إله إلا الله faal yaa yaa gaabaal ana ilaa ilaa ilaa laa ilaa yaa góor ñu faal yaa yaa gaabaal ana ilaa ilaa ilaa laa ilaa لا لا مفر لا لا لا لا لا لا لا يا لا يا يا جماعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا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 غيمان يا غيمان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لنا لا إله زالوها يا قبا أما لا لا لا لا لا لا لا لا يا إلا الله لا إله لا لا لا إلا الله إله لا إله لا لا لا لا إبراهيم وفاء باوي la la la oh, la la yeah. oh, la, oh, no, oh, la, la, la, la. đơn hạ Yagaba Oh no إله لا إله لا لا يا جماعة لا لا لا لا لا لا لا إله Bye, God. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا بابا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أبو بابا لا لا لا إله إلا الله يا أعلم فعلا يا بارك لا إله Father, yeah, my God. لا لا لا لا لا لا لا يا أنجبها لا يا شغرفة لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا أنجبها لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا يا مفعل لا يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا يا عبد الله يا يا قبر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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا يا يا أنا لا يا أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا يا أنا لا يا بعيد Phật La Ya Nam Hỷ Phật La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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا يا لا يا بابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا يا يا يا جماعة لا لا لا لا لا لا لا phật la la thầy pháp la la la la la la la la ينفع نغمة لا لا لا لا لا لا لا نغمة لا لا لا لا لا لا

ilaha illallah la ilaha Bye, Ron. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أنفع لا يا أنفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أبلغ لا يا my God Phật là người mong đợi لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا يا أنا لا يا أنا لا إله إلا أنا لا إله

إله إلا أنا لا إله إلا أنا يا أحمد يا أحمد لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا إله

la la la لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما فاض ما لا إله إلا الله لها لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا لا لا أنا معه لا لا لا لا لا لا God. لا آه لا لا لا لا آه لا لا لا إمام ما يقال لا لا لا لا لا إله لا لا يا غابا غابا ربا لا لا لا لا لا إله لا لا يا غابا صلوا Ah. বুড়াই বাবা জালু ভাগ এবার Hare our God. لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا I am. My لا إله إلا الله لا إله إلا الله la thy good father. إله لا إله لا إله لا لا لا لا لا Gorba Bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, الغرفة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا faal baay góor faal faal baay góor faal love bëgg ngeen indi addiyee borom su borom dëkkër addiyee maam Cheikh Rafal indi leen addiyee maam Cheikh كن فال لا لا لا Iya Gusuf, Iya Gusuf, Iya Gusuf, Iya Gusuf. ku iya suuf ku bu dem bu dem bu dem sëriñ bay julli sëriñ bi mooy julli rek ñu ñu jëkkiwaat si karsi bu kenn bu kenn kenn kër gi na ñëpp ñëpp ci suuf bi def na mu daan def ñu def nañu daan def kon na ñëpp suuf bala suuf ñu def ñaan def rek ndax dox li mu ñu defal tay reyna lol lool kon dañoo bëgg ñaar fukk junni lañu bëggal ñaar fukk junni lalal si lalal ci bi yow bay lalal lalal lalal mbalaan bay lalal mbalaan ñaar fukk junni lañu bëgg jox ko mbay lalal mbalaan lalal mbalaan bi ñaar fukk junni lañu bëgg ku joxe yalla yalla fa say aajo ñaar fukk junni bu kan lañu weccat ñaar fukk junni waaw 100000 lañu wax waaw waaw waaw ñu dal rek ñu dal dalal malade bi cent mille lañ soxla ñi sëñ bas alxuraan nee na nañuy bëggal mbay ndóoy kon nañuy bëggal mbay mii nga xam ne moom mooy tur yàlla waaw góor fa ñu ànd ak nañ déglu rek sëñ bi def far rey ñu yeggale waa ñu toog na ñëpp yegg suuf bàyyi faal yi egg suuf nga jëmmi yàlla egg leen suuf te suufal kàddu yi ku yegg suuf yàlla ku yegg suuf nga ci barke jaar ñu rek waaw Baye Fall maam Seynabou Ndiaye daa ñëw te maam Seynabou Ndiaye sëriñ moo def lay Fall Ndar te foofu mooy sama kër fa laay roote ba am ñu ma bëgg ñaar fukki junni laa bëgg aw nag sama mbokki tuddkati yàlla yëpp nag maa ngi leen ko yëgal bàyyiwuma kenn ku nekk sa bis nga am muy maam Seynabou Ndiaye bis bi ñu poroxaane bu dellu seen mooy maam Seynabou Ndiaye bëgg naa ñëpp teew fa te bëgg naa ñaar fukki junni fii ci doole maam Seera ku ci tàbbal sa ñaq yàlla nga daje ngërëmal maam Seera Ibra Fall barke turu yàlla wi ku maam Seera Fall jaral laa wax nag ndax tur yàlla yi mooy suñu cër ci lañu xëy ci lañ màgg ba toll ni ñu toll waaw Fall waaw ak saa jërëjëf Baye Bass jërëjëf wax nga dëgg de jërëjëf billaahi ndeysaan waaw waaw mm-hmm. ndeysaan ndeysaan jërëjëf yëngu mu ñëw jaayante leen ci nag wi bàq bu tooy la de ku ci jide daga saxle barke Saraval ma seetaan nag ma ñeetaan turu yàlla wii bàq bu tooy la yalwaan muñ kenn addiya ya lañuy laaj gracias. كلام دانتي بيقول هو الله أحد أمثالها يا مصطفى Him out.

Maranatha.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

在。 daa पूं पूंजा

sa baat gën a kaw yàlla ko fi yàgg te wér yàlla na ci wér cee yàlla na fi yàgg te wér dooley maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh yàlla na fi yàgg te wér dooley maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Bass jërë ngeen jëf ju àndut wàcc jërë ngeen jëf xol sedd na guy suñu sang bi tok xolam sedd dina guy suñu jëwlan ci tok mu bol no mo xolam sedd dina guy ñun suñu xol sedd dina guy ñun sang bi leen rek lañ lay dagaan mbàkke ki rek lañ bëgg nga ñaanal ko mu kawé lool dara bañ ko fakk lool lañ lay sat lool lañ bëgg lepp lañu wara ñaanal daal nañ ko ñaanal mu am fan wu gudd ak wër bay jëwri ki nag mo des ci mag ni yaxtu on na lool waaye tey moo ñu moo ñu mooy ñu nekk suñu kanam nekk suñu gannaaw ku baax a ngi nii ku ñu téye ngi nii ku ñu jàpp a ngi nii mag ñi bari woon nañ lool kaar macha allah waaye sama borom a ngi leen di ñii mënutuñoo dem ñii dem nañ àjjana ñu ñaanal ko moom it man sama xol dafa sedd mënu maa wax dara tey baay bas ndax <clears throat> lii lu yàgg dëgg la te njaay njaay lan sëriñ bi yóbbu woon ñu sañc ko ñu toxal si ko pasi indiwaat ko fii kon turu yàlla wii sëriñ bee ko sàkk woon bëggal ko boppam sédd nu ko nun waa la nu yaatal ko ba ñépp ci bokk ci kon sëriñ bi yal na yàlla ak sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Fall dolli leeram te taas nu ci barkeem àdduna ak àllaaxira Baay Bas noo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wir ci doole sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla li ma lay wax ni lu yàgg dëgg la mosoo suppi ko jiite nu mat ko sëkk nu bokk ak yow Kawlax di roy ci yow ngiruk taalu bi kon nu ngi lay sant nu ngi lay gërëm di ñaan nga yàgg fi lool ci kanamu sëriñ bi doole maam Cheikh Ibrahima Fall loolu rek lañ ci doon barkeeloo jërëjëf jërëjëf jazaakallaahu xayran asalaamaaleykum mbooloo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaar ñëpp rawati ci sang bi toog di sëriñ seex tàmbalee ko siyaara bi ah jëm ci mbokki taalib bi yépp ni nga ko sëñ bi waxee léegi rek lu yàgg dëgg la ndax lii du tey démb la woon waaye day mel ne tey la gën a neex tey la la gën a dëggu donte lépp dëgg la kon ni ko sëñ maam Thierno waxe rek ñu ñaanal sëñ bay mii sëñ bi ngi sàkku nga ñaanal ko ñaanalal ñëpp rek waaye nag moom na ci gën a gën ci gën a kawe ndax bàyyi àll kat ñun ñëpp mooy suñu kilifa ci liggéey bii ndax moo ko daan jiite ba yàlla moom waaye bi mu ko awee ba léegi daa gën a jëm kanam waaye dul ginnaaw kon Mbàkke loolu ñu ngi la koy seetal nga dolli ko ñaan bu baax a baax a baax ndax borom kàttanal ko dëgëral ko wéral ko teyit barkeel ko ba turu yàlla bii nga xam ne fa mu ko yëkkatee xol yëpp sedd guy mu yokk bu baax a baax li ci des ñu ngi ñaan sëriñ bi nga ñaanal bokki bi yëpp ndax ñibbi fi daje ñi ñëpp kat bëggug sëñ Abdou Hakim gëm bëggoon turu yàlla ak sëriñ Muntaxa moo tax ñoom ñëpp ñu bàyyi seen kër sëriñ ñëw teew fii di màggal guddi gi te loolu kenn ku nekk da waroon dem sa kër sëriñ parce que fa yéenee def waaye ba ba xamee ne si ab la kenn bëgg na ko sàkk ko ñu ñëw njaay di ko fa def ay at ñëw parce que bu mujj mu toxal ko indi ko poroxaan wax ne dëkk bi borom dëkk bi jar na ko ba Basiiru Mbàkke ni ko digale jar na ko waaye Mbàkke moom ni ñu sàkku ñu teew fii jar na ko kon ñu ngi lay ñaanal bu baax ci barkeem ñooñee saa borom digal sa taxawaay yokk sa wér barkeel sa liggéey ñu ñaanal nu nag ñun dong yi suñu borom dëgëral nu ci bëgg sëriñ Tuubaa ak nun koo liggéeyal bëgg Seex Ibra ak nun koo liggéeyal ndax loolu rek moo ñu jëriñ tey ak ëllëg kon ñu ngi ñaan mbakke nga ñaanal nu lool bu baax a baax yàlla may ñu wér may nu kattan may nu wërsëg man di liggéeyal sëriñ Tuubaa ak xol bu nangu ndax yooyu yëpp mën nga ko am bu sa xol nangu doo ko mën kon li ci jiir ci ji mooy xol bu nangu te dëggu te wér te jub ni nga lay ñaan Mbàkke nga ñaanal ko ci bisu maam Jaara bi bi jaay xal misul bàkk maam Jaara bàkk Seex Mamadu si bàkk sa ñëpp Mbàkke Mbàkke ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp kàddu yooyu la sëñ boo xool ne nañ ko jottali mbokki taalibe yëpp ndax nee na bi ngeen fi wàccee ba léegi mi ngi leen di dégg dégg na euh, euh, baat bu tedd bi nga xam ne mooy sikuru la xolam sedd na ci guy nu ngeen ko daan defee rek defe ngeen ko ren lu lu kon nee na loolu mu ngi lañ koy seeral bu baax di leen ci ñaanal saa borom leen bu baax yokku leen yokk wér gi yokku taalibe bi ndax sëñ bi kat waxoon na ne lu dul taalibe amul njariñ ak bi rek moo am njariñ kon yàlla na ci yàlla saxal te bëgguñu ko te dëgëral nit te nuur nit ban fit fitee ci incha allah jërëjëf Mbacke kon ñu bàyyi kàddu gi ak sëñ bi mu ñaanal bu ko defee kenn ku ne delluwaat ak cant dañuy ñaan rek balaa sëñ bi di ñaan ci toogaay bii ñu may ko yoon rek nga xam ne bu ñaanee rek dañuy toog ñun ñëpp mu dem kon nag ñu nekk nii ndigal la ñu defar yoon rek nga xam ne bu ñaanee bu kenn jóg day mën a dem rek yegg daaraam waa ñu jéggalu ci waaw ñu yaatal ko rek waaw loolu mooy ndigal waaw ngir jëmi yàlla waaw na yaatu rek na yaatu waaw na yaatu faal may leen mbay mu ñu def nii mbay jagal sëñ bi mu ñaanal la waaw na yaatu rek faal na yaatu tuuti na ñëpp te naan amin lu ci waaye bëgg na ko fas amin mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér mbàkke amin mbàkke ba nga fi yàgg te wér amin mbàkke amin mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér mbàkke mboolem naal boo naal yàlla na ko sama borom sottil mbàkke amin Mbàkke amin Mbàkke amin Mbàkke amin Mbàkke amin Mbàkke fu waay toll na wax amin amin Mbàkke te wax ne mu yàgg fi te wér Mbàkke yal na fi yàgg te wér Mbàkke mu ay rakam ak i magam amin Mbàkke amin Mbàkke amin bal bu kenn jóg bu kenn jóg ndigal la bu kenn jog bu kenn jog de ndigal li bu kenn jog na ñepp tok señ bi génn lool moy ndigal ah. na ñepp tok jërëm may ko tuddi mu xolli li wala kay Mbàkke jërëjëf Mbàkke yag fi lo téwér Mbàkke ak fii Mbakke ak góor Mbakke jaa jëf Baay Faal yi kontaan nañ lool yal na leen yàlla fay gën gi fay bu bu déwénee ku ñëw loo bëgg ci lu baax yal na ko yàlla defal li ñuy sàkku ji di ko xalaat bitim réew yal nañu ko yàlla may fii ci réew mi ñu dëkk tam yomb ñu lool ci barkeb Seera Faal ci barke Serigne Cheikh Mbakke Cheikh Abdoul Hakim jaa ngeen jëf Faal jaa jëf الله غي زمد وباغي سبحانه ذو في وواغي الله غي زمد وباغي سبحانه